da ngay dugg application bi IFK bi nangan IFK nangan booba da ngay ubbi da ngay tëj donc dugg naa ko dugg naa ko donc xool kee nga A bi waaw. alhamdulilah. léegi kaw. léegi xaar ma tëj distance ngay toll. bu ko bu mën moom fu nii. tey jii boo demoon boo demoon si biir sax nga dem si nga dem sa yoon nga am na ko fàtte sax da toll France sax boo leen dee nga ubbi ko quoi amul ay maa ngi dem nga dem sa yoon boo demee nga mu eh, dama ne fale dama taxaw foofu mobile la mun toll si monde bi ak portable mun nga ko tëj donc donc pratiquement